sallallahu alayhi wa sallam nee na seen jëmm yi yàlla itteelul yàlla alal yi itteelul yàlla waaye yàlla mi ngi xool seeni xol waaw ku ci gën a sell xol ku ci gën a sell jëf yàlla loolu moo ko itteel sëriñ bi nee na loolu moo tax ba sunu sang yi nga xam ne ñooy sunuy sëriñ ci tariqa bi daan nañu soññ taalibe yi ñu taxoo ci jàng lawraat yi waaw bari na ku jël tariqa bi ba noppi aj ko waaw bu fekkente ne mënuloo ko jëfandikoo bul ko aj waaw tariqa bi kenn du ko aj nekkul lu ñuy aj ba koy aj aj saa bu la neexee wirt da gis ko toog weer wu mat sëkk ñëw na la man toog naa weer woo xam ne wasifa wu ma lazimu dafay am waaw sëriñ bi nee loolu ëpp naa def nañu sàmmonteeg jàng lawraat yi waaw xam ne arkaani mooy sa al wirdu lazim nga war ko def suba war ko def ngoon wasifa wi itam li ci sëriñ bi wax sànq sidina cheikh daf ne taalibe bi mën na wasifa suba mën na wasifa ngoon waaye su boolee suba ak ngoon moo gën wa waqtuha almasa aw ilsabaaxu jamcuhuma fa xasanun rabaaxu loolu la maam Cheikh Al Hadj wax ci kifaay ci faakiyatu tulaab nee na wasifa wi benn suba benn ngoon waaye nee na sidna Cheikh nee na boo boolee ñoom ñaar nag moo gën maam Cheikh Al Hadj Malick ne baatu moo gën bu bàyyi ko ci làmmiñu sidna Cheikh man Maodo du ma ko bàyyi mu dem damay wasifa suba ak ngoon moo tax mu ne jamcuhuma boole leen ñoom ñaar wasifa suba ak ngoon fa xasanun lu rafet la rabaaxu bénéfice la te mbokk yi ne ku ci nekk bëgg nga mbakar fegu kon képp koo xam ne jële nga ci maam Cheikh El Hadj Malick wala nga jële ku jële ci moom da ngay wasifa suba di wasifa ngoon ñu bàyyi ci xel bu baax baax a baax labbayk waaw waaw sëriñ bi mu ne ñu waaw sëriñ bi dafa wax ne maanaam dañu wax ne tariqa bi dafa am ñi ay awraat sidina cheikh bi muy def euh, xalwa ba yàlla wan ko maamam sallallahu alayhi wa sallam dana ñëw ci kanam mu ne ko lawraat yi nga nekkoon yépp bàyyi ko bis nekk tey may sa sëriñ jox ko wirdu bi la ko njëkk jox jox ko astaghfirullah jox ko salaatul fatih mu di ko wird lu war a mat ñeenti at ci la ko ko mottalil nag boole ci laa ilaha illallah muy ñetti téeméer yi astaghfirullah téeméeri yoon salaatul faatihi téeméeri yoon laa ilaha illallah téeméeri yoon lii dafa war ci taalibe cheikh bi nga def ko suba def ko ngoon bu dee ci suba gi maam cheikh alxaaji malik jële na ci sidina cheikh mu ne mën nga ko jiital lu jiitu fajar bi jot mën nga def sa lazim waaye fexeel ba bu fajar jot soo ko doon jàng ba fajar jot te fekk na parewuloo maam Cheikh Al Hadj Malick nee na da koy àggale ba noppi baamtuwaat ko kooku mooy lazim bi bi ci tegu mooy wasifa bi wasifa bi mooy astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum fanweeri yoon salaatul fatixi juróom fukki yoon laa ilaha illa allah téeméeri yoon jawharatul kamal fukk ak ñaar ci fekkente ne mën nga matal charte yi ñu wax nga ànd ak laa bu dox jàng ko ci barab boo xam ne lu bon bon xajoo na juróom benn nit te fekk itam nga bañ a toog ci lu kawe bu fekkente ne bii charte yooyu matul doo jàng jawharatul kamal da nga koy wotte salaatul fatixi ñaar fukki yoon ñaar yii dafa nekk lu war ci taalube bi soo ko bu la ci faat danga koy fay ni nga xamante ni julli bu la faatee ni nga koy fay sa alwirdul lazim bi ñu njëkk a wax sa wasifa bu la faatee euh, ni ngay faye julli noonu nga koy fay bi ko bi ci tegu ci ponk yi mooy xadratul jumaa te moo di laa ilaha illa laa ilaha illa allah téem junni bu fekkente ne yow kott yaa koy jàng junni baax na junneeg ñaar téeméer baax na junneeg ñeenti téeméer baax na junneeg juróom benn téeméer baax na am na sax ñoo xam ne sidina cheikh demoon na ba jox leen digal ñu koy jàng ñaari junni waaye ñooñu rek la ko joxoon bu ñu ci des kon moom Cheikh Al Hadj Malick nee na gën jaa junni mën na dem ba junneeg ñaar téeméer junneeg ñeenti téeméer junneeg juróom-benni téeméer kooku mooy xadaratul juma nga xam ne sidina Cheikh nee na bala nga koy def da ngay bàyyi ba waxtu des pour jot jant bi so taalibe yi dajee bu taalibe yi dajee nag amatul lim dañuy jàng rek ba waxtu yu jot bu ko defee mam Cheikh Al Hadj nee na benn. ñu sax ci laa ilaha illallah wala ñu sax ci allah allah wala ñu boole ñaar yépp def genn wàll gi laa ilaha illallah def genn wàll gi allah allah allah sëriñ bi nee na lii mooy ponk yi nga xam ne taalube cheikh bi moo di al awraadu lazima c'est obligatoire soo ko bàyyee da nga koy fay waaw loolu mooy charte yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bari na kuy jël di aj waaw waaw bi ci tegu mooy ci wàllu wasifa wi maam Cheikh El Hadj Malick dafa wax ne wa waqtuha al masa aw istabaaxu mi ngi ci faakiha wa waqtuha al masa waqtu wasifa benn muy ngoon aw istabaaxu aw li taxiir fa taalibu muxayyarun bayna qiraati alwazifati almasaiya aw istabaaxiya taalibe bi am na choix ci def wasifa suba wala bu def wasifa ngoon am na ñuy def loolu waaye nag mu ne jamuhuma sidana cheikh ne boo wasifa suba wasifa ngoon nee na moo gën maam cheikh alhaaji malik ne baatu moo gën ni mu fonke sidana cheikh ak ni mu ko bëggee ak ni mu ko doyloo en tant que maître mu ne baatu moo gën bu bàyyi ko ci sidana cheikh ci làmmiñam maam ne du ma ko bàyyi mu dem kon damay wasifa suba ngoon ak képp ku mu àndal moo tax mbokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax da ngay dem ci dëkk yu bare bare bari bàyyi nañu wasif buñ jullee suba dañuy dem ngoon dañuy dem am na ñoo xam ne dañuy wasifa suba ñii di wasifa ngoon waaye képp ku jële ci maam Cheikh El Hadj Malick wala nga jële ci muqaddam bu jëlee ci moom dangay ngay wasifa suba di wasifa ngoon mbokk yi ndax loolu leer na ndax maam nee na jam'uhuma boole wasifa suba ak wasifa ngoon fa xasanun nee na kooku lu bien la lu baax la rabaaxu bénéfice la itam kon na ci taalibe yi sax sëriñ bi nee na itam ñu sàmmoonteeg teggin yi waaw dangay gis kuy wasifa sama classe bi waaw tàllal sa tànk ndeyjoor te amuloo benn ngant tàllal sa tànk càmmooñ da dangay gis ku jàkkaarloo télé bi waaw yaa ngay zappe yaa nga ca làmbu ja yaa nga ca football ba te ma jaala aleykum fi diini min xaraj ma jaala laa fi euh, nu ko nu ko waxeeti euh, fi xalbeni min xaraj waaw li rajulin min xalbayni fi jaw fi waaw benn xol mënul jàpp ñaar danga nga ci gis sax ñu xobe ñoo xam ne bu su messi de de bëgg a dugal nga danga dem ba sax yëkkati si tànk dóor waaw ndax booba yaa ngi ànd ak Barcelone wala nga ànd ak keneen fa tabarakallah wala Real wala keneen kon nag booy wasifaati wala ngay lazim jublul penku nga toog toogin wu tegginu tooginu kuy julli fa tabarakallahu bañ a def dara lu rafet ci sa kanam sax loo xam ne daf lay soxlaal fay rajo yi ak télé yi rek sëriñ bi neen daal fay rajo yi fay télé yi waaw waaye bëgg di wasifa ba noppi même sa portable bu sonee am na benn bis ñu julli fii ci jàkka ji mag moo xam waaw te bi nee na matul sax 10 minutes ci lay toll nga muñ ko rek dellu ci sa télé dellu ci sa sa sa sa téléphone am na ñoo xam ne mënuñoo muñ téléphone man gis naa fii ñuy julli góor goo xam ne ñi ngiru ko téléphone am sonné mu génnee ko ci poosam bés teg ji nopp bi te mu ngi julli kon sëriñ bi nee na ñu sàmmoon teg teggin yi nga xam ne moo war fa tabarakallah waaw istixdaar dafa am solo teewlu boo teewluwul li ngay def itam julli sax da nga ko def bañ a teewlu nga pare ñu def ko coupé jël ko sànniwaat la ko waaw julli ji ne la ni nga ma toroxale ni nga ma ñàkk joxe sama xaq yal na la yàlla toroxale noonu tabarakallah yàlla nee na wala dikrullahi akbar fa tabarakallah waaw tudd yàlla tudd bi yàlla di bi jaam bi di tudd bi yàlla di tudd jaam bi su ko tuddee nee na moo moo gën a màgg te moo ëpp solo te dikr lépp a ngi ci te afdalu dikr mooy qiraatul quran kër yëpp bi ci gën mooy jàng alquran ñu bàyyi ci xel nee na itam ñu xam ne tariqa bi soo ko dee def am na ay effet yoo xamante ni bii yu yi ci fóot xol fa tabarakallah xol boo xam ne dafa deewoon waaw dafa deewoon xol bu soxar summa qasat qulubukum min baadi dalik waaw dañu wax ne ñetti xeetu xol moo am qalbun mujarrad ak ak laf ak qalbun mankuus sayyidina xudayfatu bnu yamaan loolu la wax ñetti xeetu xol qalbun mujarrad xal boo xam ne mutajarridun an maasi wallahi tabaraka wa taala fees na dell ak ngëm yàlla boobu xol amul problème am na xal xol boo xam ne ak laf ni enveloppe di muure kayit ba du feeñ am na ci xol boo xam ne taq na ci bàkkaar tilim ci mooy yàlla ba leeru yàlla dootu ca tàbbi waaw am na ci xol boo xam ne nag xolu naafeq la bu nekkee ci jullit ñi wane ne jullit la waaw bu ñu kàbbaree mu kàbbar waaw ma ngay gëdd nit ñi nangam ak nangam te fekk na bu wéetee moo gën a dëng ñëpp yàlla nañ ci yàlla boole musal xol boobu nag ak xol yu dee yooyu tariqa bi daf koy daf koy daf koy daf koy daf koy dundalaat fa tabarakallah tàmmal ko wéet ak boroomam waaw wéet yàlla wettal bi ci gën mooy mooy jël sa borom mu nekk sa wettal boo tàmmee yàlla muy sa wettal doo wet mukk fa tabarakallahu ak yëg itam ne sa digganteeg sa borom benn kiiraay amatu ci waaw li borom dalaa ilul xayraat di wax wa azil xijaabal gaflati an qalbina waaw kiiraayu càggante yow yàlla yàlla na nga ko dindi ci sunu xol ba fu ñu toll di la yëg nga xam ne bu ñu la mënte laal itam mënuñu laa gis ci suñu bët itam xam nañ ne soriwuñ la wal abdu in lam yastayqid min gaflati lam yumkinhu qat'u manazili sayr la musila ila maarifatillah nee na jaam bi bu fekkente ne bi yewwuwul ci nelawu càggante du mën a dog mukk manazil yi nga xam ne ci la nit ki di sóobu pour mën a àgg ci xam yàlla te nag loolu rek moo tax yàlla bind jaam bi wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun yàlla nee na bi may bind nit ñi ak jaam ñi binduma leen lu dul illa li yaabuduuni ay illa li yuwaxiduuni wa yutiicuuni waaw nañ ma wéetal nañ ma topp te nañ ma xam fa tabaarakallah te nee na nit ki nag mënul àgg mukk ci yàlla lu dul nga xam ne dafay tudd yàlla waaw am na ñoo xam ne sax dañ naan waaw comme que téere yaa ngi fi jarul may am sëriñ dégg nga su ma jàngee ci téere yi danaa xam dégg nga sëriñ bi mën naa nekk sama maître fa tabaarakallahu ma du àgg waaye loolu ay wax la ku sàggan moo ko wax ku sàggan moo koy wax yàlla kenn mënu cee àgg taamuloo amuloo amuloo ku la ca jàllale waaw ci yàlla te sëriñ bu jàpp ci sa loxo kotti kotti yolli yolli sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bi muy am ñeenti at la génn ci àllu madina ci àllu makka ca yaayam sunu yaay xalima di doxantu jékki-jékki sayyiduna jibril ñëw këf ko waaw këf ko tëral ko tabaarakallaahu xotti xol bi génne ci lépp loo xam ne cëru seytaane la woon min al wal xasadi wal xeqdi wal kibr ne ko lii moo doon cëru seytaane ci yow yàlla mënoon na bañ a jaar ak moom foofu loolu moo lay xamal ne nit ki mënul ñàkk kilifa bu muy amaat fukki at mu génnaat ci màkk ni ànd ak xale yi mu mu génnaat ni ñaari malaaka ñëw yonent bi ne maa ngi leen di gis ñu jékki-jékki ne cëpp kii ne ko ahuwa ahuwa ndax mooba mu ne ko waaw mu ne ko jël ko mu jël ko mu tëral ko xotti xol bi gi yore benn sat la boo xam ne satala wurus la ndoxu zam-zam moo ci nekk génne ci soxar génne ci kañaan génne ci gaawu mer fa tabarakallahu defaral ko ko ba mu jekk yonent bi nee na maa ngi yëg ni ñu koy tëralaate deret génnul caas bëtul fa tabarakallahu yonent bi nee na bi ma paree keroog laa féex sama xol ñeewant fees fees ci dell ci ñeel képp ku ndaw képp kuy mag itam ma am ci yow yërmande am ci yow war ma kon kilifa mënul ñàkk kon boog kilifa googu nag moo lay jox lawraat yi dëppook yow nga di ko zikr sa xol di defaru sa ruux di yëg di dem di dem ci yàlla wala yastayqidul mbaru illa bi dikr nee na fal xaflatu nawmul qalb càggante gu ëpp dafay dem ba waral xol bu dee waaw wa dikru miftaaxun li baabil xadrati képp koo xam ne bëgg nga àgg fëgg buntu yàlla ñu ubbil la il faut nga nanga ko def astaghfirullah laa ilaha illa allah julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa manshurul wilayati faf mooy dara wu wilaya képp ko bëgg àgg ci yàlla il faut nga tudd yàlla nee na nag sëriñ bi nee na comme que taxaw te bâtiment mënul taxaw te amul fond man bu dëgër loolu moo tax ba sunu sang yi kilifa yi ma euh, mawalina as-suufiya al atibaa ar-ruhaniya ar-ruhaniyin nga xam ne ay docteurs ruux lañu ni ni nit di feebare dem ci docteur docteur sama bopp day metti nangam ak nàngam mu jël sa tuur ndox wala mu jël sa tuur ñam wala mu jël sa tuur deret jël ko ñu yóbbu ko ci laboratoire bi nga mu génn xam lu la dal mu jox la ay garab nga ñëw naan ko feex nit ki itam noonu lay feebare ñëw ci ëttu nitu yàlla waa feebaru ruux sa ruux taq tilim sa xol taq tilim nga ëw nga ñëw ci ëttu nitu yàlla mu xool la rek xam ne yow mii da nga rëy xool la xam ne yow mii da nga bëgg daraja xool la xam ne yow mii da nga gaaw a mer yooyu yëpp mu la koy jukkil benn par benn ci ay lawraat di la defal tarbiya di la teg ci yoon nee na loolu moo tax nag kilifa yooyu ne am na juróom benn étape yoo xam ne taalibe bi mënul àgg ci yàlla mukk fii ak dogul juróom benn étape yooyu bi ci njëkk moo di tuub waaw tuub inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin comme que tooñ yàlla ta ñàkk tooñ sa moroom mënta ñàkk jaam bi fu mu toll maqaamu tawbati war na cee sax sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne maa leen gën a ragal yàlla aw ma sax bàkkaar waaye bis bu nekk danaa jéggulu yàlla téeméeri yoon loolu moo tax tariqa bi rëy moom sallallahu alayhi wa sallam ci koo xam ne kii yàlla jéggal na ko lépp inna fataxna naa lekk fa li yaxfir allahu li yaxfir allahu laka euh, ma taqaddama min dambika wa ma taaxar te terewul bés bu nekk nee na daana tuub téeméeri yoon kon sëriñ bi nee na maqaam bi ci njëkk mooy mu tawbati ci képp koo xam ne bëgg ngaa jege yàlla bi ci tegu itam moo di al istiqaamatu jub waxoon nañ ko sànq jub bàyyi xel yàlla bàyyi xel pénc mi bàyyi xel sa njaboot bàyyi xel sa bopp waaw waaw da nga gis taalibe cheikh boo xam ne bu jëlee tariqa bi rek dafa nee ne daal lu mu def rek salaatul fatihi mën na ko ko fóotal waaw am na ci loo xam ne na cheikh bu ko àttanee itam rus na ko yenu ëllëg ca kanamu yàlla kon nañu jub bi ci tegu itam mooy ragal yàlla ragal yàlla moom weesuwul li yàlla ne defal nga def yàlla na bàyyil nga bàyyi waaw bu lekk riba bàyyi fi riba bu lekk mbaam xuux bàyyi fi mbaam xuux bul jouer carte bul nga bañ a jouer carte fa tabarakallah waaye da ngay gis mag moo xam ne dem na ba bejjaaw dugg ci jàkka ji ñu lal mbalaanu fa mu génn ba noppi jaar ci kiosque bi jënd ay numéro di xoos bis bu nekk mu ne billet ma tere gañe wax naa ko ay xale ma da nga ci gis ñoo xam ne sax dañ lay téléphoné ne la sëriñ bi damaa bëgg nga lotoril ma nga lissi xaaral ma juróom benn numéro yi ba xam ban moo ciy gañe bi ci tegu moo di as sidqu dëggu as sidqu am Cheikh Alhaji Malick nee na dëgg mooy taalu mooy taaru taalube aadana allahu min almaridi waaw dëggu looy jëf na dëggu ci yow looy wax na dëggu ci yow ya ayuha alladina amanu taqullah wa kunu maa sadiqin bi ci tegu moo di al ixlaas sellal looy def na nga ko sellal wa maa umiru illa li yaabudullaha muxlisin bu fekkee da ngay def ngir nit ñi tagg la waaw yaa mën a jaamu yàlla yaa ñemee dem jàkk ñaata yoon nga aji màkk foo toog rek di tagg sa bopp di yëkkati li nga def nit ñee tax nga koy def te yàlla nee na ana aghna surakaa ani shirk bis dana ñëw nga ñëw mën a loo indaale nga ne ma nangam mën a la man taxuma woon nga koy def ndax ixlaas amu ci woon bi ci tegu moo di almuraqaba foo toll del fuglu yàlla di bàyyi yàlla xel boo nekkee ci mbooloo mi soo wéttali ko boo nekkee sa njaboot boo nekkee ci réew mi boo tukkee foo toll yaa ngi def muraqaba jalaalallah wa azamatahu wa kamaalahu wa haybatahu ak ni mu jekkoo àdduna ak sañ-sañam ak dooleem soo ko dee fuglu am na loo xamante ne bi doo ko sañ mukk sëriñ bi nee na boo seetloo yii mu wax danga fekk ne lii yëpp ca xol lay bàyyi ko sotti te xol baaxul benn waay dafay julli mel ne Abdou Mbaye ma ngay jël loxo ba dugal ci poche bi nga ca portable ba ma nga ca sikkim ba di jàpp sallallahu alayhi wasallam ko xool ba mu yàgg mu ne ah waa ji daal ca dëgg-dëgg law xashaa qalbu la xashaat jawaarixu xol bee ragalul yàlla li nga gis mu koy def ci biti di laal loxo yi fii ma nga ca tele ba ma nga ca football ba bëgg ko boole yépp nee na ca dëgg-dëgg bu xol bi amoon yëg yàlla kon cër yi dana ne nemm yàlla moom itam li imaamul Busayri wax ne wa ida xallat ilhidayatu qalban nachitat fi libadati al aadaaw nee na njub bu demee ba wàcc ci xol cër yi dafay sawar ci jaamu yàlla koo gis mu sawara di ci jaamu yàlla dala la wóor ne rek am na lu nekk ca xol ba sëriñ bi nee na kon lo lii bokk na ci lii feddale ci ne tariqa tijaaniya bii may la gu bàyyikoo ci yàlla nga xam ne bii ca kaw la bàyyikoo ca azal la woon ngir mu warlul ko ak mat ak yéeg ci wàllu ruux ak garantil képp koo xam ne kii itam boo ko jëlee da nga àgg ci yàlla nee na jox ki ko yàlla jox ki nga xam ne mooy raisul awliya mooy kilifa nitu yàlla yépp muy mawlana abul abbas ahmadu tijaani sharif radiallahu anhu taajul aarifina wa imaamul muqarrabin tariqa la boo xam ne itam nag bokk na ci ay xasaa yi sam mooy dafa diggu doomu dafa dafa diggu doomu wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan tariqatu wasat la xaabaabalul waaw du la teree lekk du la teree naan du la teree nelaw du la tere sañse du la teree am njaboot du la teree doxi say soxla fa tabarakallahu lawraat yi dafa yomb astaghfirullah téeméer salaatul fatihi téeméer te sax boo demee ba mu xat ci yow sax mën nga jàng benn salaatu ala nabi bu gën a gàtt bu dee ci lazim bu dee ci wasifa moom mënoo jàng lu dul salaatul fatih waaye bu dee ci lazim boo de woon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim sax baax na waaye nag na cheikh nee na salaatul fatih moo gën ndax li ci nekk nekkul ci benn salaatu waaw kon tariqa la boo xam ne danga nga jaamu yàlla ba noppi du dox sa digganteeg penc mi kon tariqatu wasat la fii jamii tasarrufatil muridi tijani waaw ndax nee na awraad yi nga xam ne bii moo ci nekk awraad la yoo xam ne dafa dëpp ak principe l'islam waaw astaghfirullah téeméeri yoon kooku yaakaar naa ne du la jëlal temps salaatul fatixi téeméeri yoon du la jëlal temps laa ilaha illallah téeméeri yoon wasifa fanwe ñaar fukki minute ak juróom wala fanweeri minute te kooku bu dee mbooloo kon kooku du la jëlal temps yalla nee na wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj nee na ndax taalu tariqa bi li muy bañ mooy taaliba bi toggoo ci boppam loo xam ne du ko mën et puis daf koy diisal waaw ndax bu diisee rek mën naa xëy xëy génn ci iklafu min al amali ma tutiquun fa inna allaha la yamallu xata tamallu waaw nee na kon fa tabarakallahu ñu bàyyi ci xel te itam nag maa qalla wa qarra xayrun mimma kasura wa farra waaw na nee na loo xam ne dafa néew te sax moo gën loo xam ne dafa bari ba noppi bu teyee nga def boo ëllëgee nga bàyyi bu yàggee sax nga far ca génn mbir yëpp la ca gën daal mooy la ca sax loolu moo tax ba fa tabarakallahu ñu fekk ne sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax sëtam bi ne ko muy def xalwa tariqa bu nekk mu jël ko ak tariqal euh, xalutiya yeneen ak yeneen waaw ba maamam feeju ko nag ne dama bëgg nag nga bàyyi tariqa yépp te nga téye ci tariqa bi min gayri xalwatin wala atisal jaratul sax ngay def xalwa jarul ngay beru nit ñi soo ko defee danga àgg ci cër bi nga xam ne moo lay xaar ci lu dul benn xat-xat ci lu dul benn xaraj te sax doo ci sonnal sa bopp nee na loolu moo tax ba cheikhul xalifa radiallahu anhu xalifaam bu tedd ba mi ngi wax ci xasidaam ba naan rabba bila xalwatin asxaabahu alanan xatta staqaamu fa yàlla allahi man xaahu waaw nee na sidna cheikh a ngi noonu saxaaba bi yëpp àndandoom yëpp daf leen a yar ci lu dul ñuy dugg xalwa lu dul ñuy def ictisaal an innaas ba ñoom ñëpp ñu faf nekk ay nitu yàlla xatta staqaamu fa yàlla allahi man xaahu bi himmatin aw bi xaalin xaaza tarbiyata nicma almurabbi muribul xaqi yardaahu waaw himma rek wala ci xaal ci la sidana cheikh amee tarbiyaam fa tabarakallahu ka ko yar baax na lool te képp koo xam ne dëgg moo la tax a jóg nga sàkk ko nee na danga nga bég ci ànd ak moom nee na kon tarbiya bi bil himmati wal xaal eh, ne mooy tari mooy tarbiya bi nga xam ne ci la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yar ay ay àndandoom daf leen a yaroon ba nga xam ne bu guddee dañuy mel ne ay ay ay labbe ci jaamu yàlla ak topp yàlla dañuy fanaane jaamu yàlla ba fajar waaye su bëccëgee ba bëccëg ba ba jant bi fenk nee na boo leen gisee dangay xam ne ñi ay jàmbaar lañu ci farlu ak nangoo liggéey waaw xoolal ba am Cheikh Alhaaji Malik radiallahu anhu koo xam ne guddi gi daf daan al alquran ñaari rakk rakk bu njëkk bi nga jàng xaaju kaw bi rakk bu ñaareel bi nga jàng xaaju suuf bi ñu pare nga ñëw ci jàkka ji ànd ak ñoom julli ànd ak ñoom wasifa suñu pare nga toog ci daara ji di jàngale ba ngoon kooku da nga naan nit la wala malaaka la waaw tabaarakallah moo tax maam ci mu ko def maam na Saidu Nuur daana wax ne jëmm ji Cheikh El Hadji Malick jëmmi nit la waaye jëf ji jëfi malaaka la nee na fa tabaarakallahu loolu nag ci la sidina Cheikh yar ay saxaabaam te ñi ànd ak moom ci dëgg-dëgg boo dee seet moo di ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax maamam nee na ko asxaabu ko asxaab say àndandoo ñooy samay àndandoo nee leen bu ñu lorante ndax bu ñu lorantee dafay agsi ba ci man te loolu baaxul la cheikh alhaaji mouhamadul haadi wax radiallahu anhu ba muy tagg maam cheikh alhaaji malik wala ba mu koy way li sëriñ Pape Malick wax wax léegi caageen nag tagg pour nëbbal ko ay sikkam waaye dafay wax pour feeñal ay ngëneelam pour njaboot xam ne fi ñu jàpp dëgër nañu jàpp bu baax a baax ulaayika al qawm ashaabu rasuli wa ashaabu tijaani wa ashaabu ibnu uthmaana nee na gaa yooyu nga gis ñu ci géew yi nee na ñooñu de bu leen xeeb ñoo ñooy àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa te ñooy njabootu Cheikh na Tidiane Chérif te ñooy njabootu doomu Ousmane muy maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu loolu moo tax ba waa tariqa bi nee na ci bu dee ci wàllu yar ak ak tarbiyatu bil himmati wal xaal ci la ñuy sukkandikoo am na lu ñu daan tudde ak tarbiya al istilaahiya boo demee ci ifhamul munkiril jaani maam Cheikh El Hadj Malick mi ngi ko ci indi tarbiya la woon boo xam ne ñi ko daan def dañ daan beru dem ca àll ba. toog ay fan yu yàgg bàyyi seeni soxna bàyyi seeni doom du ñu lekk ceeb du ñu naan ataaya du ñu noyyi noyyi bu baax rey seen bopp waaw fa tabarakallahu door a àgg ci yàlla sidina cheikh nag maamam ne ko dama lay bàyyi ngay naan kafe di lekk ceeb bu midi di dóor sa afra ba noppi bokk ci góor yàlla yi di sañ sa ba jekk dóor sa basin fa tabarakallahu sol sa mbaxana mu jekk wàccee sa kol sa parfum bi gën a neex te fu ñu limi góoru yàllay boole ci sa njaboot kon boog si sëriñ bi nee na pour nit ki am réussite dëgg-dëgg ci tariqa bi il faut nga bàyyi xel mabda'u al wasatiya wa i'tidal waaw bul bul ëppal waaw li ñuy wax extravagance ëppal waaw ci lii wala ci lii fexeel ba lépp dox fa tabarakallahu fonkal sa jàkk fonkal sa wasifa waaye itam fonkal sa mécc fa tabarakallahu sëriñ bi nee na nag loolu ku ci am lu gën a bëgg lu gën a yaatu ci ci enseignement wu tariqa bi ak principe bi tariqa bi ak lawraat yi nee na boo delloo ci téere yi nga xam ne bii ñooy traité loolu waxtu yi moo ko dul maye te bëggu leen a guddeel nee na moo tax waaye ku ci dellu da nga am lu gën a yaatu loolu moo tax nag ba tariqa bi nekk bunt sauvé sauvetage ñël képp koo xam ne bi jàpp nga ci waaw in kuntu baaban lin najati waaw loolu la sidna cheikh waxoon maamam bu fekkente ne bi daal ku jàpp ci man sauvé mën na nga koo jël bu fekkente ne bi loolu amul fa ay ayu fadlin li ban ngëneel laa am ban mérite laa am fa tabarakallah nee na nag bi ci tegu mooy nitu yàlla yépp bokk nañ daje ci ne tariqa mënul taxaw lu dul ci ñeenti ponk bu dul loolu mi ngi mel ne nga fekk doom nga ciy ëf waaw boo ëfee rek mu dem du am benn jeexital bind ci doom ba noppi ëf la nga bindoon ay naaw wala athara laha min asuluki alxaq bi ci njëkk mooy mënul ñàkk sanad waaw wéeruwaay waaw sanad boo xam ne danga nga naan lii fii la jaar ci diw la bàyyi ko ci diw la bàyyi ko ba àgg ci rasulullah àgg ci yàlla bu lu wala loolu ku mu neex nga jékki-jékki ne cëpp créé sa tariqa bopp waaw walaw la sanadu la qaala man shaa ma shaa ba ci xadis waaw bu lu woon ak sanad jële nañ ci diw jële nañ ci diw jële nañ ci diw ñu gëstu ñu xool ndax ñu wér lañu daanañu fen ndax seen mokkal dëggu na wala déet ba mu àgg ci rasulullah bu dul wala loolu ku mu neex nga ne lay cëpp fa tabarakallahu ne ne ne ne ne yonent bi nee na dafa am benn waaye ndeysaan bu feebaroon nekkoon ci kër ji gi Muhammad la tuddoon feebar bi nag xiir ko ci ne fu mu toll ne moom mooy yonent bi booy waxtaan sax boo nee rasulullah mu ne waxa bul wax lu ma waxul de bul wax lu ma waxul ndax moom jàpp na ne moom mooy bi tabarakallah nee na bi ci njëkk moo di as assanadu bi ci tegu mooy ak zikr bi ci tegu mooy talqiin nga xam ne dañ lay sax wirdu wi am sëriñ bu la ko wax sala ko nga jaar ci bi ci tegu nag mooy yar ak teggin waaw sëriñ bi doon wax sànq léegi sama classe gi ko ci nekk fa tabarakallah sëriñ bi ijaasaal na ma bëgg a yoonu bopp am na ci ñoo xam ne dañuy dem sax ba ne léegi ñoom dool dootul ñoom ak Tiwaawan dootul ñoom ak Cheikh xaaji malik ñoom ak face direct la taalibe yi nañ mooy tundiku loolu ëpp naa def waaw ba moom Cheikh di liggéey ak ñoom ko seqaloon pour tariqa bi ak si fii booba foo nekk yow foo nekk yow tey nag dem face yomb na kon nañu sàmmoon teg teggin wa bi fadlillahi taala la ca des nag xanaa mooy ngëneelal yàlla nee na itam nag ak kaweeg itte ki nga xam ne moo ko sos ci la tariqa bi nag boole mbooleem xeetu ponk yi assanadu wa dikru wa talqiinu wal adabu lépp mi ci biir tariqa bi boole gu wér gu sëkk nag kenn du ci warante kenn ñaar ñaar duñ ci warante te nee na lo bu ko defee nag ñun tam en tant que ay taalibey cheikh itam nag du ñu weddi ngëneel yi nga xam ne yeneen tariqa yi am nañ ko tariqa yépp baax na maam cheikh alhaaji malik nee na fa turuqu kulluha ila arrahmani muusilatul muslikatun yaa jaani jàpp nga doy lool sa sëriñ doy lool sa tariqa waaye bu mu tax na nga xas keneen wala nunkiru mali turuqi sufiyati al uxra min al mazaya tariqa yi ci des la ñu am ci ay ngënale ki mbaax ñoom itam ñun duñ ko weddi nangul nañ leen ko ku fa jàpp bokk fa yal na la fa yàlla fekk jox la la ngay sàkku jaarale ko ci kilifa ga la ko jox waaye ñun tam ñu fonk li ñu am moo tax maam Cheikh Alhaaji Malick nee na ca dëgg-dëgg nag dëggal naa nitu yàlla yëpp képp ku ma gëstu ba xam ne nitu yàlla nga juboo nga ak sa borom mam Cheikh Alhaji Malick nee maa ngi yow bokk yoon waaye nag ca dëgg-dëgg ki nga xam ne nag mooy seen kilifa mooy sama cër mooy sama chance fa tabarakallahu te booy Cheikh na Tidiane Chérif asabta jawfal fara faqna bi daaka wala tahris fa inna al ghina naylul waaw rëbb ca coow la waaw ca dëgg-dëgg nag nee na kon na nga doyloo loolu te bul xir nee na bo nee doylu doylu moom mooy mooy lépp doylu mooy lépp sanadu tariqa bi nag ak aslu talqiinam ak ay awraatam ak ay tegginam yàlla dafa dogal lépp mi ngi bàyyi ko ci sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox sëtam jox ko waarifu sirrihi muy mawlaana abul abbaas yi nee na yàq yaqzatan ci face à laa mën a mën waaw du caa gën ak jejeer du caa gën ak nelaw waaye dañoo bokk toog waaw am na nag ñu koy weddi naan yonent bi génn na àdduna kenn mënu koo gis waaye yow sa sa sa sa xel a toll foofu rek waaw ah, sa xel a toll foofu waaw ah, am na benn jigéen joo xam ne doom ji dafa def juróom benn fukki junni salaatul fàtte ñëw ci yaay ji ne ko yaay dama lay bégal mu ne ko lu xew mu ne ko dama gént bi gis yonent bi mu jox loxo bi ne ko doxal fële yow ay gént nga may nettali ma yaakaaroon ne da ngay wird salaatu ala bi ba ne yonent bi toog naag yow ba jox la loxo doxal fële yow bokk ko ci góoru yàlla yi te demee ci téere yi mboolem ñi nga xam ne gis nañu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaqzatan borom xam-xam yi ko gis dañu la koy limal kenn par kenn du caagee nag sidina cheikh moo ko njëkk a wax de fa tabarakallah moo tax sidina cheikh ne qad axadna an machaaixa idda séqoon naa kook ay sëriñ yu bari ku nekk am loo ma jox waaye la ci ëpp jëfandikoo wu ko dama ko def ci sama gaal am na lu ma ci jëfandikoo waaye falam yaqdi llahu bi taxsil al maqsuud la ma bëggoon aw ma ko ba yàlla baaxee ma nag feeñal ma sama maam mooy sama wéeruwaay mooy sama sëriñ moo ma tartib bii mu nekkee sax fa tabarakallahu moom ma ko jox kooku mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam faqad qada allahu bi fatxina wa wusulina ala yaday ubbeeku bi ñu am ñu koy tudde al fatxul akbar mu amee ko ca abi samxuun ca Algérie nee na mi ngi jaare ci loxol maamam amul beneen sëriñ bu ko ko defal moo tax kilifa ga wax ne arrayahi jërëjëf sëñ Babacar tur yi laa fàtte woon ca siini yàmba mu ne ko wama gunuunuka bil wirdi alladi nadamat yadu nubuwati hal yubna moo yow luy sa xalaat moo yow luy sa njort moo yow loo xalaat loo xam ci wirdu woo xam ne yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox ko sëtam ndax yaakaar nga ne wirdu woow nit mën mën naa tabax ci lu dul fondu mag xasida bu la fi kulli ma sabaq sëriñ bi nee na kon lii mu tudd danañ ci jànge ne tariqa bi tata la waaw rempart la boo xam ne ku ci dugg raw wa safinatu najaatin nee na gaal la goo xam ne itam gaalu sauvetage la fa tabarakallahu yonent yàlla nu wax ba muy tabax gaalam ga gaa yi da koy di ko reetaan mu ne baax na bis dana ma sa ñëw waaye gaal googa ña ci dugg nañ mucce woon tariqa bi itam ku ko jël jàpp ko sàmmoonteeg charte yeeg teggi nii na ñooñu mucce woon yow itam noonu ngay mucc waaye nag li kulli man wafaqahu lil inxiraat fi silki ahdiha nuuraani képp koo xam ne yàlla baaxee na la may la tawfiq ba nga adhéré wu ci tariqa bii nga xam ne buum gi buumu leer la fa tabarakallahu moom dana cheikh daana wax ne saaiqu saada yasuuqu unaasan ila hadratina nee na mbir mi du caage nag bëgg-bëgg la waaw nit dana bëgg nekk sama taalibe bi te du ko nekk waaye nag nee na texe texe buum nga koy wommat dana wommat ay nit ba indi leen ci sama njaboot ñuy sama taalu bi am na ñoo xam ne nag nee na yàlla la soog mu jël leen sànni leen ci àll ba waxuñu ci man dara du ñu sama njaboot bañ nañ ma ba noppi yëkkati seen làmmiñ di ko teg ci sama sama der waaye sidina cheikh nee na ci làmmiñu xaalam ayyuhal mu'ridu anna yow mi ma won gannaaw du ci yow inna iraadaka minna maa la soxlawul waaw law aradnaaka jaalnaa kulla maa fiika yuridnaa su ma la soxla woon dama lay soppi nga faf di am cheikh waaye maa la soxlawul kon sëriñ bi nee na ñi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yokk ngërmaaneem ci xalifaam bu tedd ba di ki donn woon mbootam dikk ki yanu woon drapeau bu tariqa bi ci réew mi di sunu maam Cheikh Alhaaji Malik radiallahu anhu nga xam ne ma ngay wax ci nuunu yaam ba ne inna duxula uxayya fi tariqatina fa bil machiati la fi kaddi jufmaani nee na dugg yow sama mbokk ci tariqa bi nee na kooku du la nit di fàggu coobare yàlla rek la waaw amul amul amul coono yaram nit mën naa sonn ba noppi du ci bokk nit ki mën naa yem fi mu war a yem yàlla boole ko ci kon yàlla nañ ci yàlla boole sëriñ bi nee kon li muy tëjee lii jëme ko ci njaboot gi jëme ko ci taalibe yi muy yóbbalu ziyaara bi ba déwénee te yàlla nañ ko fekkee jàmm moo tax tariqa bi daal jagle yi am mooy moo tax mu nekk tariqa boo xam ne dafay dafay dafay jëmmal maani at tasawuf al xaq waaw li ñuy tudde at tasawufu sunni nga xam ne du tasawuf bid'i li ñuy tudde at tasawufu falsafi nga xam ne ña ko doon wax lañ cay wax dafa génn lislaam ak tasawufu sunni dëgg-dëgg nee na tariqa bi moom lay jëmmal wa tubrizu maalimahu bi suratin waadiha te itam nee na ni ngay defaree sa tali ba noppi def ca ay li ñuy tudde ay balise balise ko ba xam ne ki ciy daw dana xam fi muy teg tànkam ba du wàcc tali bi xam ñaata kilomètre moo ko desee ba mu def nànk nee na tariqa bi itam lépp loo xam ne tasawuf daf ko ëmb te mu nëbb woon tariqa bi ni balise yooyu di baliser tëli ba mu leer tariqa bi itam noonu la baliser diine bi suratin waadihatin jëliya ndax dafa génnul ñett yi bi ci njëkk mooy setal sa xol yaral la sa xol ba nga am xol bu baax yow ma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim fata yoo xoon nañ ko sànq yonent bi nee na woon yaram am na suux wi ci nekk su jege lépp jag bu yàqoo lépp yàq yàqu kon mooy xol tariqa bi nag xol la lay defaral fa tabarakallah bi ci tegu itam mooy daf lay defal taskiyatu nafs defaral la sa sa bakkan sellal la ko toxalal la ko min an nafsi al ammarati bi su ila an nafsi lawaama wa minha ila an nafsi radiyati al mardiyati al mutmainna kon boobu tariqa am na solo fa tabarakallah qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha qad aflaha man tazakka kon baatu tazkiya ak wasailu at tazkiya fa tabarakallahu dafa xat moo tax sëriñ bi gàttal ko noonu rek waaye ni muy sellale bakkan defar ko ba mu nekk bakkan bu sell boo xam ne juboo naag boroomam tariqa bee ci gaaw wa taxwiyatu ruux daf lay alimenter sa ruux dikrul ilahi lil qulubi quutu cheikh alhaaji abdul aziz nee na dikrul ilahi tudd yàlla qulu quutun aliment la lil qulubi ñeel xol yi in lam taich bu fekkente ni bii dundewu ko fay yéet a dafay dee tariqa bi kon dafay alimenter sa ruux sawar loola ci jaamu yàlla sawar loolu ci ngëneel yi doo yem rek ci ay ay ay farata am na ñoo xam ne dañ naan samay farata ci laay yem waaye farata ku ci yem sàggane sunna da nga mas a dem ba bàyyi farata te doo ko yëg moo tax tariqa bi daf lay ñaax ci ngëneel yi ñaax la ci nawaafil yi fa tabarakallah wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin bi ci tegu itam tariqa bi daf lay ñaax ci tasaare jikko yu baax yi fa tabarakallah boo demee ci faakiha moom Cheikh Alhaaji Malik mi ngi wax muqaddam bi ni mu war a nekkee ak taalibe ci taxaw ci seeni mbir taalibe yi nañu war a nekkante ci seen biir ni loolu sax dina Cheikh indi na ko ci rasail yi nga xam ne mi ngi ci jawahirul maani da ko daan yónni taalibe yi nekk faas na ngeen bëggante na ngeen moytandiku bàkkaar na di dimbalante na ngeen di jéggalante na ngeen di yërëmante nangam ak nangam kon taalu tariqa la boo xam ne ñi ko séq war nañoo am jàmm ci seen biir war nañoo am jàmm ak ñi ñu séqal itam réew mi ci ay ngëne ay jikko yu baax ay valeur yu kawe ndax diine diine mooy jikko ju rafet waaw ma yërmande waaw waaye ko doo yërëm ku feebar doo yërëm ku ñàkk ku ñàkk nga ne lu mu doon def ba ñàkk lu tax liggéeyiwul nangam ak nangam yàlla mooy yore sax ku ko neex la koy jox fa tabarakallah waaw xol bu dee boo xam ne bii mën nañoo ti tiim néew léegi da dem ci armeel yi dañuy denc nit sax nit ñi commencé ci portable yi ak téléphone yi te génn guñ armeel yi loolu li koy waral mooy xol yu wow yëgatul yàlla ashuuru bi rahmati wa rafati wa xubbil xayr nga bëgg yiw wa nashril ni bëgg jàmm foo foo toll di tasaare kóolute ak sécurité bañ a bokk ci ñi nga xam ne dañuy yëngal fitna taal fitna fa tabarakallah sëriñ Maodo laay faral di dégg mu ne fitna joo xam ne boo baree man-man ba taal ko itam yaay mujj di wut loo ko faye te mën naa am mu jàppandi mën naa am mu bañ a jàppandi kon bu ko taal wattuma nii na ci foo toll itam nga fexe bay dalal sa xel dalal sa xelu njaboot dalal xelu ñi nga dëkkal ala bi dikrillaahi tatma'innul wal istiqraaru nafsi waaw nga fexe ba am dalu dalu dalu daru biir waaw am ko ci sa njaboot am ko itam ci pénc mi fexe ba ñi dëkkal ñépp nga tàllal loxo mbokkoo ak xamante ak miinante ak solidarité ci seen biir te yàlla tax bul tëj sa bunt loo dunde ak yow ak sa ñaari doom ak sa jabar yomb na waaye fexeel nag lépp lu la dese ci fadl nga jox ko ñi nga xamante ne bi fa tabarakallahu dañoo néew doole nee na boo desee tariqa bi kon ci gàttal tariqa la boo xam ne dafa ñëw pour appliquer waaw lettre ak lettre ci li nga xam ne mooy résumé wu risaala bi nga xam ne ci la yàlla yónni yonent yi génn ko benn yoon waaw tariqa la boo xam ne usus yi ko sañ ci lépp génnul yàlla nee na génnul yonent bi nee na sallallahu alayhi te loolu itam waxtu wee ko dul maye waaye daanaka ponk buñ la ci wax mën nañ koo génne ci alquran wala ñu génne ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam